actu du joure lu ciy gën fës bokk na si xibaar bi yees bu tukkee ci bile feebar di coronavirus bi si suñu réew mii di Sénégal tey nag téeméeri nit ak ñaar fukk ak juróom-ñaar la ñu testé juróom yi képp ñoo si positif gannaaw ba ñu fajee fukki nit niki tey rek ba ñu war a ñibbiwaat si seen kër yi si waxtu buy ñëw ca diwaanu Pikine nag lu toll ko fukk ak juróom-ñaari nit yoo bokk benn kër la ñu mettre en quarantaine ndaxte rek ñoom ñoo ñee ñu ngi dëkk si kër googee rek bu dawee woon euh, caserne Samba Diéry di Diallo euh, dëkkoon ca Wakam tamit jóge nañ si 9 dal di yéeg rek ba ñaar fukk juróom-ñetti cas si jamono ji may wax ak yéen ana fan la ñaar fukk ak juróom-ñetti cas yooyee jóge ko daana danaa leen ko leeralal si euh, kanam tuuti rek lay doon danañ wax aussi si ancien président olympique de Marseille bii di Pape Diouf mu ñàkk bakkanam si suñu réew mi di Sénégal si bile feebar di Covid 19 bi moom moomee nag daal dinañ koy dënc ni kii démb fan lañ ko léegi faux médecin bii di docteur Samba daa dinay jànnoog enquêteurs yi ba noppi moom nag daa dinay reconnaître la mu def la mu xamal nag enquêteurs yi tamit danaa leen ko jottalil bu yàggul dara lay doon si lu ñeel couvre-feu bi danañu wax rek ca la ñu nemmiku démb ca diwaanu Touba mu doon lu doy waar lool gannaaw rekk ba police yemee si ñaari tout tànk ya nga xamante ne ni seen at si ñeent la war a toll euh, si 23 heures di guddi googe mu doon la nga xamante ne ni euh, doy na waar lool. si lu la politique Ousmane Sonko du voter projet de loi d'habilitation bi ñu soumettre démb ñi di député yi lan moo waral rek moom moomee du ko voter Ousmane Sonko daañu leen ko xamal démb Cheikhou Gueye Soumboulou li ak Ndoye Bane rappeur bi di kilifa la ñu recevoir si émission gonnal bu ñuy amal ci TFM waaye nag moom moomee actrice boobee di Soumboulou dafa yëkkati rek kàddu ya nga xamante ne nii eh, ñii di internet ci rawatina rek ñu bëri askan mi rafetlu wuñ ko benn yoon yaatalal bu loolu yembe ñu toftal si tàggat yaram ak xibaar bu ñu jotoon démb rek eh, si lu ñeel ñii di mbër yi gannaaw ba ñu waxee ne rek eh, dañoo sanctionné ña doon critiquer kii di Alioune Sarr li moo ci gën a fës eh, bu ngeen taaxirloo gannaaw bàkk bi ñu daal di koy yaatal. bàkk ba jib na ma leen di nuyu yéen ñuy teewlu saa su ne rek ci Dakar Buzz ngir taataan lii di xibaar yi eh, bu ñu sukkandikoo nag si jëwrin bu ñu dénk wàllum wérgu yaram bi Abdoulaye Diouf Sarr xibaar bi yées bu tukkee ci bi ni ki tey eh, bokk na si rek téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari ya ñu testé ya nag ñoo si amee coronavirus bi gannaaw ba ñu positifee ñaar ñee dañoo jógee biti réew dugg si si réew mi ñett ya rek leen ko wàll waaye ba mu noppee si loolu la xam ne rek ni lu tollook eh, fukki nit faj nañ leen ba ñu wër nañu war ñibbi sax ci seen njaboot yi ci waxtu yuy ñëw ci boobaak léegi nag 2 mars tey nekk ñaari fan ci weeru avril mu def benn weer ba ñu amee cas bu njëkk bi ci suñu réew mi di Sénégal bu ñu xaymaa nag ña fi jot am bile feebar mu ngi yemoo rek ci téeméer ak juróom-ñeent juróom ñu fàcce juróom fukk ak juróom yi ba ñu wër am benn décès am kenn koo xam ne dañu ko évacuer rek di France gannaaw ba ko sàkkoo fi mu ne nii rek ci suñu réew mi di Sénégal téeméer ak fanweer ak juróom-ñett nit ñoom fi desee coronavirus bi ñu war leen faj waaye nag bu ñu sukkandikoo rek si professeur Seydi danañu euh, am njortu gu rafet na rek ñoom ñoo ñee dinañu wër bu yàggul dara ñibbi seen kër yi ndaxte rek moom professeur Seydi xamle ne rek ne hydroxychloroquine bi rek mooy gën a gaaw a wëral gannaaw ba ñu ko testé te nee na rek si bés yi di ñëw daañu si yokk beneen garab rek ngir euh, faj ñi nga xamante ne ni ñoo dese bile doomu jàngoro di coronavirus bi si suñu réew mi di Sénégal ba tey si Covid 19 bi waaye bi la yoon ca Pikine foofee nag fukki nit ak juróom-ñaar yu nekk si benn kër la ñu mettre en quarantaine gannaaw ba ñu njortee ni rek dañoo amee bile feebar di coronavirus bi fukki nit ak juróom-ñaar yooyee nag ñoo ngi dëkk si këru patient bu dawee woon ca infirmerie caserne Samba yi jàlloo su ma jógee Pikine damay jàll rek ca Wakam foofee nag gannaaw ba ñu amee woon juróom-ñeenti cas coronavirus altine bi ñu génn jamono ji ñoo ngi si ñaar fukki cas ak juróom-ñett yi nga xam ne nii rek ñu ngi ko enregistré si diiru ñaari fan kepp bu ñu sukkandikoo rek si estimation gu maire commune ba di Samba li jàlloo ba tey rek bu ñu sukkandikoo si moom maire ba si ñooñee bokk na si rek kenn ku jógee ko bàyyi nga xam ne sax jot na ko wàll si famille yam juróom-ñaari doomu aadama. ñooñee tamit daal di koy wàll rek lu toll ak fukki benn nit si seen commune boobee loolee tax rek ba Wakaam am tey ñaar fukki cas ak juróom-ñett si coronavirus bi laata mi xam leen rek teel nañoo jël seen i ba disposition si fàttali meeru ba Medina ak Wakaam di Bamba Fall ak Samba Bathily Diallo képp la ñu convié woon si teewaayu médecin yi réunion d'urgence bu ministre de la santé de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr convoqué woon ni ki ëmb aywa ma wax ci ancien président wu olympique de marseille bi di Pape Diouf mu ñàkk bakkanam euh, ci suñu réew mii di sénégal ci bile feebar di covid 19 bi nga xam ne rek mooy gulet euh, moom moomee sax mu ngi ñàkk bakkanam talaata fanweeri fan ak benn ci weeru mars bi ñu génn ca hôpital Fann euh, bu ñu sukkandikoo nag ci directive autorité sanitaire yi ma Mababa Diouf ñu gën koo xam ci turu Pape Diouf ay atam tolloon ci juróom benn fukk ak juróom ñett daal dinañ koy rek denc démb ci àllarba gi benn fan si weeru avril mille 2020 bii ñu nekk si armeeru musulman ya nekkee ca Yoff si sutura ak nag nu réew mi demee si jamono ji danañu communiquer rek ab numéro de téléphone ngir ñoo koy jàll ay mbokkam ak i jege ñaale mu xamle ko si ab communiqué de presse bu bàyyeekoo rek si ku jege lool ancien président wu olympique de Marseille boobee di Pape Diouf yàlla na ko yàlla yërëm ma junj leen ko léegi si ndorteel li foo médecin bi ñuy dippee rek docteur Samba daa dinay janook enquêteurs yi moom nag daa dinay reconnaître la mu def gànnaaw ba mu leen xamalee ni moom moomee rek xamoon na ni eh, carte ba mu yor baaxul ndaxte ministère de la santé et de l'action sociale joxul ko ko benn yoon waaye rek benn xaritam du gérant imprimerie bi ñu dippee Isotec moo ko ko confectionnel si noonee mu dellu rek di xam xamle ni xam na ni document yëpp baaxul ndax doon bu boowoo rek turu ba médecin ba mu sa noppee nag moom Samba lay leeral ni rek ba mu amee baccalauréat wam ca lycée Yavuz Selim la entamé rek ay études am en médecine waaye rek mënul woon soutenir thèse am ndaxte rek dafa amoon ay jafe-jafe koppar euh, si noonu ba muy xarandi nag am koppar googee la entamé rek ay études de spécialisation euh, développement industriel du médicament à travers rek euh, filière pay atub jàpp atub 19 waaye jotul woon rek am diplôme bi ba tey rek eh, si kaddu ba Samba def na boobaak léegi ñaari at ba mu déposé ab offre ngir def bilan général de santé si personnel bi yëpp ca caisse des dépôts et consignation waaye rek amu si retour laata muy xamle sax ni rek eh, ni bu yàggul dara la ko responsable ressource humaine ba eh, contact rek di ko wax ne dañoo bëgg ngir rek ñu am ab conseiller si bile feebar di coronavirus bi si noonee rek la demee si siège CDC ba ngir defal leen rek benn exposé ba noppi jox leen ay recommandation si mesures sanitaires ya ñu war jël nee na nag si noonee la ko directeur ressources humaines ba waxee rek ngir mu defal ko ay test si seen ñaari employé yaa jota rek séjourné si ay zones yoo xam ne nii wóorul laata muy reconnaître tort bi mu def si li mu présenté rek comme directeur clinique bi di Rabi laata rek muy leeral ni lu dul dëgg rek la doon wax lu ñeel nag cachet yi Samba da dasee xamle ni rek mën ko mën ko doon falsifié si ab boutique euh, falsifiant wu docteur Diakha bi yeeg euh, FIFA ñu defeere ko nag démb usurpateur bi daal dinay bénéficié woo ab retour de parquet si fàttali Amadou Samba ñu ko arrêté en flagrant délit si buntu siège caisse des dépôts et consignation ajuma bële ñu génn di koy toppee nag juróom-ñetti délit nga xam ne bokk na ci exercice illégal de la pratique de médecine faux et usage de faux commis sur un document administratif faux en écriture publique et contre contrefaçon de sceaux et de documents d'une administration publique et privée usurpation de titres escroquerie sur des deniers publics ak tamit rek mise en danger de la vie d'autrui ba ñu koy interpeller nag ñoom policiers yi fekkoon nañu sax ci moom moomee ay documents yoo xam ne ni rek bokkoon na si ab certificat wu guérison wu bile feebar di coronavirus bi moom nag Amadou sàmm mi ngi def rek euh, victime am bu njëkk si corps médical sénégalais bi ab infirmier euh, buy liggéeyee tamit sax ca hôpital Aristide Le Dantec sûreté urbaine bu Dakar daal dina koy placer en garde à vue njiitu réew mi Macky Sall daal dinay débourser rek euh, juróom benn fukki milliards ak juróom-ñeent ci suñuy koppar ngir yokk rek aide alimentaire gi ñu jagleel askan bu ko yeyoo euh, ci objectifu benn million ménage bu ñu sukkandikoo ci l'observateur nag euh, cent quarante six mille tonnes denrées alimentaires la ñu war a séddale famille ya ñu tànn ci noonu ku nekk ci ñoom ñooñee dina jot rek ñaari saaku cinquante kilo ceeb fukki litre diwlin fukki kilo pâtes alimentaires ak benn paquet buy def rek eh, fukki saabu ak juróom-ñett 300 grammes loolee ñu war jënd yëpp dana yemook njëgu ba eh, juróom-benn fukk jàpp juróom-benn fukk ak juróomi milliards lu des nag ci enveloppe ba la ñuy jëfandikoo rek ci frais ya ñuy amal ci séddale dund yooyee eh, nguur gi mi ngi xalaat tamit rek bu ñu sukkandikoo ci suuf yi ci le fait que tranche sociale bi ñu teggil leen ba courant gi waaye nag ville bu Dakar Pikine Rufisque ak Thiès rek bokk si yooyu lay aide alimentaire lu ko waral naka du leen du dul seen statut dund yooyee ñu ngi ko jagleel euh, cinq cent cinquante trois communes yu nekkee fii si Sénégal mu doon nag ab proposition bu njiitu réew mi Macky Sall validé ma juñu leen ko léegi si ndorteel li si couvre-feu bi ca dëkk bu sell boobee di Touba ak lu doy wax la fa am rek ni kii démb foofe nag ba 23h jotee la police dal di yem rek si ñaari tout tànk ya nga xamante ne ni seeni at si ñeenti képp la war a toll mu doon nag la nga xamante ne ni doy na waar lool jaaxal ñenn si askan wa boobule vidéo mën ngeen ko seetaan sax si suñu site ngir gën ko mën a teewlu. politique Ousmane Sonko du voter projet de loi d'habilitation bi ñu soumettre démb ñi di député yi loolee nag nekkul ni ndaxte dañu ko beddi ci processus bi comme nuñ ko defee rek ak député yu bëri waaye daa gis rek ni moom Ousmane Sonko boobulee loi ci ay loxo kenn nit képp lay yem njiitu réew mi man financière force Covid 19 bi ak i pouvoir exceptionnel yi. ba tey ngeen di teewlu actu du jour ñu àddu jëmale ci leneen démb nag Cheikhou Gueye Soumboulou Bathily ak Ndoye Bane rappeur bii di kilifa la ñu dalal rek si émission ngonal bu ñuy amal ca télévision Futurs média ba ñuy wax nag si mesure de prévention yi ngir xeex bile feebar di Covid 19 bi la actrice bii di Soumboulou yëkkati ab kaddu en direct rek buy def buzz jamono ji moom nag rakku ba buri Bathily boobee daa yaakaar rek ni ñii di villageois yi dëkk kaw yi dañ civilisé wuñu e, gannaaw ba ñu xam ba mu xam leen ni rek comportement ak geste yu bizarre la ñu leen di ràññeewee moom nag sumbulu e, remettrewul rek en question éducation ña dëkk ca kaw ga waaye rek daa yaakaar ni ñoom ñoo ñee civilisé wuñu benn yoon ba tey si bile sujet lay des ak yéen yile kàddu nag yu sumbulu bàcc li yëkkati nga xam ne wër na réseaux sociaux yi doon na loo xamante ne ni internet yi nakkal nañ ko di koy ñawlu ba fu ñaawlu yem à travers seen commentaire yi gannaaw ba kàddu boobee doone rek lu leen bett lool mu doon nag luy firndal ni booy wax rek xamal la ngay wax ndaxte rek comme nuñ koy faral di waxee ball bu xesee ba jib rek jeex na. tàggat yaram laa koy tëje ñu jot xibaar wi depuis démb di xamle rek ni CNG daa woneti boppam dal di sanctionné rek ña doon critiqué kii di Alioune Sarr laata sax ñuy xamle ne Tigre de Fass bii di Gris Bordeaux dañu ko radié Bombardier ñu suspendre ko diiru juróom-benn weer confisqué licence roi des arènes bi di Modou Xarañ loo ba noppi rek ni écurie Soumbédioune bu Boy Kayre bi dañu ko dissout loolee nag jaaxaloon ñenn si fans waaye dara amu si gannaaw leeralee ni rek ab poisson d'avril képp la woon.